jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen ziar bu baax a baax di leen baalu àq te di leen baalu àq di leen jaajëfal bu baax a baax ci jox ci bopp bi ngeen jox bopp tey nag ñoo ngi fii ci géej waaye seet si koo xamante ni dootuñ leen ko présenté ndax doon na koo xamante nii fu mu génnee waa làmb xàmmee nañ ko àdduna xàmmee nañ ko ba na tey nag ñu seet si ko bëgg waxtaan ak moom ci làmb bëgg waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom la ñu dëtmal muy bésu Balla bi bari na yoo xamante ni laxasu na ci bëgg nañ ci leeral mbokk internet yi mbokk leeral ci ñi nga xamante ni ñooy dund làmb xanaa ñu bàyyi ko mu nuyoo ñëweel waxtaan wi Père Diaw nuyu naa la. waaw Seynou maa ngi lay fay bi ma sant yàlla julli ci yonent bi sant suma ñaari waajur maa ngi sant Maodo El Hadj Malick si suma sëriñ di sant sëriñ Babacar di ñaanal suma frère bi di suma jarbaat ñu koy wax Adama bu Wassare Lamb mm-hmm. nga xam ni tey mooy suñu. ñaareelu jotaay. ngeen ñëw seet si ma. may gërëm borom chute bi di gërëm e, suma ñaari waajur di ñaanal waa Waalo di ñaanal waa Géejawaay di gërëm suma xarit bu ñuy wax Souleymane Fall ak Ndeye Seck suma doom te yàlla dafa dogal ñu ñëw ci suma kër seet si ma pour ñu war a waxtaan ci émission bi e, ba ca kanam ba nga laaj ma leneen. Mhm. ba ci kañam ba nga laaj ma leneen. Mhm. Euh, père su ma ñëwee ci damay dugg sax ci combat bi. Mhm. damay dugg si komba bi parce que dama gis euh, combat Balla Gaye Aziz ak ki nga xamante ni dañ ciy sonn di ci daj ay coono diggante Aziz Ndiaye ak Baye ak Balla seen diggante lan la. waaw wax dëgg yàlla fierte bi ma am mooy maa ngi lay gërëm ci seet bi nga ma seet si ndax combat bi mu ngi des léegi six jours. te Balla lépp lu may wax ci moom damay waxaat mais hmm. bisam bi dama bëggul mu ñëw ba jàll <coughs> internet yi ñëw di ma laaj may soogam wax suma xalaat. dama bëgg wax suma xalaat à l'avance combat bi wax ci suma gis-gis ak suñu taxawaay ñun waa Guédiawaye ñun dirigeant yi ak taxawaayu Balla Gaye ba bu bis baa bu ñu baree ba pare ñu seetaanoon chute bi vraiment xam ne Balla Gaye ay boroomi xam-xam ñoo ko dar. Hmm. li am mooy yaa ngi may laaj ci koo xam ni ñu koy Abdou Aziz Ndiaye. toujours damay wax ni lépp lu ma nit di laaj ci wàllu làmb te laajoo ma ci Aziz vraiment awma lu ma neex Aziz ak Baye Ndiaye yàlla dafa dogal ñu nekk ay doomi Géejawaay juddoo fi yaroo fi màgge fi waaw maanaam comme euh, li nga ma laaj rek ci entre Aziz ak Baye Ndiaye ma lay wax rek ni bon alalu fa ñuul moo di ñàkk nga Aziz moom man dama am occasion di ko gërëm mais am na ñu bëgg am occasion bu mel ni bi ma am pour gërëm ko mm-hmm. ndax lii Aziz di def nit ku xam àdduna moom moo koy def ndax làmbi Balla Gaye ji di mm-hmm. Balla Gaye nekkee ci ay jafe-jafe depuis contre ma Gris Bordeaux Aziz ñëw dugalaat loxo ci Balla Gaye ku ne xam ne ni Balla Gaye am na changement Aziz daal li ma la ciy wax mooy ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla fameem ñu ngi koy ñaanal yàlla ñun ñi ko yàlla booleel ñu ay xaritam ñu ngi koy ñaanal yàlla. géejoo yi ñu ngi koy ñaanal yàlla ndax coono yii muy daj ci Balla Gaye daju ko lu du ñun dañu xam li ci wuti ñàkk. et Balla Gaye bu gañee komba dafa am lu muy def fii ci biir géejawaay di ko def ci biir àdduna bi su agistee xam-xamam ak xalaatam ak ay moyam seetaan Balla ba safaan am la mu ci yëg xaalis jaru ko. kon daal ci gàttal diggante Baye Ndiaye ak Aziz Ndiaye ay nit lañu yoo xam ni mboolam ku nekk fii ci biir Guédiawaye yaa xam mag nga wala ndaw walla jigéen ak ku mën a doon yaa ngi leen di ñaanal yàlla. barke démb la fi jëlee Balla Gaye yóbbu ko ci tubaab yi Balla Gaye def pile de presque deux mois. Mm-hmm. Balla Gaye nag mu ngi soogam tegu ci yoonu làmb ndax sportif day am kilifa te Balla Gaye mboolam li nga xam ne moom la ko Aziz di wax. Balla Gaye da koy def ni mu demee ci tubaab yi lañ ko fa teg seetaan naa seen signature moog Bombardier xëy na Bombardier ma ngi xeeb li Balla gay def wane nii moom foofu jaar na fa jàngal nañ ko affaire yi moniteur et cetera et cetera mais ku xool entre Bombardier ak Balla Gaye xam ni bokkuñu. li leen wutale mooy fi Aziz dem yóbbu fa Balla Gaye mhm. Balla Gaye entraîné fa ba am état bi man état bi gëw ma ni woon. am na sportif bu ko mën a def ci nit mais ñun ñi nga xam ne làmb rek la ñuy dund si kàttanu yàlla bu ñu demee ba bis ba ba arbitre soufflé li Bombardier waxoon dana toxu li Balla Gaye wax dana toog. mais dama gis seen premier combat ñoom ñaar Bombardier da koo daan ñu bari ne Balla Gaye dafa feebar woon Bombardier ne na dem faju ba tane bu dellu siwaatee mu dumuwaat ko daanaat te fi mu toll nii moom dafa mel ni Balla Gaye macha allah. xam nga bët moom natt ci bët la yam ku seetaan diggante Balla Gaye ak Bombardier bu njëkk ba. Mhm. lii ko Balla Gaye di wax dafay bañ a salteel victoire bi rek. mais man dama wax toujours ni ji du mës a jël photo bu mu daanee Balla Gaye ñu di ko jaay. xam nga bi làmb démarré ba léegi heure bu ay mbëri bëree ba pare jël am dañuy jël photo bi di ko di ko jaay nit ñi ñuy wone fi mbër mi daane mhm. mbër mi mu doon bëreel. mais jamais Bombardier jël photo Balla Gaye di ko jaay. ndax li tax loolu mooy bi Balla Gaye di teg Bombardier mi ngi teg épaule te ñi gën a xam làmb te du ma tudd seen tur di leen jaxaseeg Bombardier ñooñu nangu nañ ni centaine de millions yi ñu leen fay jël bi waroon na jë nekk jël boo xam ne li ñu leen fay vraiment raisonnable na maanaam jël Bombardier bi ak Balla dafa nekk jël boo xam ni à vrai dire Bombardier toujours ma ngi naan Balla Gaye maa la daan mais ci lamiñam la yem eggul ci xolom su ko doon daan daf koy daan ba toog ci kawlam wala daan ko xeetu jël boo xam ne mais nag mais nag Bombardier dafa duma Balla Gaye waaw en réalité dañuy waxtaan rek xam nga déjà yow sa émission rek nga bëgg mu neex. mais bi Balla Gaye def coup de dégagement ci ko Bombardier kor déclenché laaw daw di ko plaqué. Mhm. bi Balla Gaye dem ci suuf fekk na Bombardier dóor épaule am. di fait que combat boobu yàlla dogal na Balla Gaye nee na dafa feebaroon. Mhm. nit ñi ko yor nii dafa feebaroon. bëri na nu daan nañu ñu ngi ñaan victoire bi yàlla na ko jig. mais fi mu toll nii Balla Gaye tane na. dama ni Balla Gaye <laughs> dépassé na tane. indi na état de forme indi na esprit tranquille am na dirigeant yu baax yu mel ni Baye Ndiaye ak Aziz ak ñi ko dar ñëpp ci biir Guédiawaye am na borom boromi xam-xam yu ko dar Balla Gaye nekk koo xam ni kenn jàngalu ko bëree. li tax làmb ji lenn rek moo ma ci métti mooy lii nga xam ne suma ma Gaston Mbengue nga wax na ko làmb ji fi mu toll ci réew mi e benn junni nit bëgg dugg ci biir stade bi bëggoon na à l'avance combat bi vraiment ñu waxtaan ak borom réew mi ak ñi ci réew mi yëpp ñu xam ni feebar bii fi ñëw jógee gu fi ñu takk masque yi raxas loxo yi dagg billet yi dem ci stade bi mais suñu bëree ba pare ci ngay xam ni li mbër yëpp waxal Balla Gaye ni moo dàq bëri ci mbër yi Bombardier ji bu boobaa dinañu ko këpp micro ni ko ku mën ci mbër yi mu ne Balla Gaye ci man ba nga laaj ma leneen. mais léegi dama gis combat bi combat bi ñoo na mais dañuy gis Balla Gaye chaque signature dafay défilé wu da wane ne damaa pare damaa am doole chaque jour ay tous yenn yu kàddu yoo xamante ni daal gën nañ koo gis ci Balla Gaye wala gisatuñ ko woon dañuy gis Balla moment ba moom moom ak ñoom Baboy moom ak ñoom Modou Lo boobu lañ gisaat lan la confiance bu ngeen am la wala dafa am lu leen dee ci combat bi. man di en réalité dama ko xaw a mere sax lan laa ko meree mooy Balla li mu doon wax daf ko wàññi. li mu doon def. li mu doon def man sax dama am problème c'est parce que Balla Gaye dafa daan ñëw ci combat jaay ko wax heure bi muy bëri ak ni muy bëree mbër mi mais combat wu Bombardier ak Balla Gaye daal Balla Gaye daal ku respecté Bombardier la ndax jee c'est parce que Balla Gaye waxeek moom ak nii Bombardier dafa nekk mbër mu yaru mais qualité yii ma gis ci Balla Gaye ci wàllu état forme ci wàllu kattan expérience bi Balla Gaye am fa mu demoon xam bi ñu def ci moom bu ñu sëggee bëri ba pare yow di nga regretter li Balla gay doon wax Balla Gaye dafa waxul dara. actuellement daal bu ko bu ko Elton bu ko bu ko Gaston Mbengue doon jox vingt millions wala benn trente millions ci ni mu daan signé contrat bi Gaston Mbengue na ko wàññi ndax Balla Gaye li mu doon wax waxu ko te lu ëpp loolu ma ngi ci moom kon ñun waa Guédiawaye ak waa waalo ak waa Casamance ak ñu nekk ci diaspora bi yëpp nañ doon gis Balla Gaye xam ne Balla Gaye li mu ni mag la daal dëgg la. Balla Gaye daal tàngoor yi wàññi na ko. naka nga gisee Bombardier. waaw ni ma gisee Bombardier mooy mbër mu jeexal la boo xam ni na gërëm Balla Gaye gërëm Gaston Mbengue gërëm waa CNC waxuma ko nag pour sànni ko xeer ndax. Bombardier jeexaloon ngeen ko jël père. xam nga jeexal paasewul Bombardier bu ci fekkoon ni tey Gaston Mbengue nga jàpp ci Balla Gaye jàpp ci eh, président. Bira Sène xam ni bon làmbal lu ko defar moo ko indi kon Bombardier wartul bëre kon bombar ji bu toogee di naw kattanam di naw xam-xamu xam bëreem su bëreeg Balla Gaye ba pare day dem talal loxom jox kayitu retraite am ndax Balla Gaye dana wane ni kii retraite na ndax danaa ko yóbbu retraite ba nga laaj ma leneen. mais est loolu dina yomb yóbbu Bombardier retraite ak fi Bombardier toll. la leen naqadi woon yëpp moo leen ko teg fi mu nii ngeen war a jël si waat revanche est dina yomb. dama lay wax ni si kàttanu yàlla Balla dana wane ni wax dëgg yàlla maa ngi ñaan yàlla nag xam nga yàlla dafa nekk buur boo xam ne moonu moom moom àdduna bi moom bis ba tey ñu ngi nii di wax ci combat bi ñëwagul mais ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ni moom moom ndam dogu naa ci Serigne Babacar si heure boo xamee ni sunu borom far naa ñu ñun. Balla dina bëri ci stade bi lu tax amateur yi nii nañ leen jaayaat billet yi fayaat lu toll nii la ñu fayoon gis na mbër mi dëgg-dëgg. li coow li di bare bare réew mi ñu fi nekk ñëpp di takk ngemb ay mbër lañu mais mbër yëpp ñoo seere ni Balla Gaye moo dàq bëri ci mbër yi si kàttanu yàlla le premier Balla Gaye dana wone ni Bombardier taxu koo jóg quatre avance yi. Bombardier moom nangoogul loolu moom. non dama ni Bombardier daal nagu jëm seeraas la amul mbañ si kàttanu yàlla li ma gis. Balla Gaye dana xeex ndax Balla Gaye dugg na ci làmb ba bi muy bëri Gris Bordeaux la wone ni man bër mu ñeme laa mu mën a xeex la mhm. contre Modou mu wane ko contre Bombardier mboolem mbër yi mu bëreel Bombardier la ci gën a mere ndax bi ñuy bëree dafa feebar. mu bëreeg moom jël roi des arènes bi yàlla dogal làmb di dox ba ñu boolewaat leen si kàttanu yàlla daal li mbër yëpp wax Bombardier dana ko wax le deux le premier la ñuy bëri le deux na nga dem mbuur laaj Bombardier ku dàq bëri ci mbër yi danañ la Balla Gaye moo dàq bëri ci mbër yi laaj ma leneen. mais su ma su ma génnee ci loolu dañuy gis euh, fu ñu gisaan Balla Gaye wala fu mbër géej waaye di bëree ñu gis la fa mais boobu ak léegi signature gi suñu Père Diaw dégguñu ko mu wax seenu la fenn. lan ma waral loolu. waaw xam nga suma doom ji dafa tukki woon mu ngi woon France yàlla dogal bi ma ñëwee léegi troisième signature contrant moom la def première signature bi dama demoon ci stade ba ba mu fa jógee dafa xaw a wéradi te ma lay wax rek ni fépp foo xam foo xam ne. Bombardier jàppale ci mystique. waaw maanaam dama ne wéradi gi mooy bon dama am coono yaram rek mais Bombardier dafa nekk suma frère xam na ni nit laa koo xam ni dama jaboote mbër yëpp mais nag Balla Gaye mooy suma doom. ma lay wax rek nii fépp foo xam ne Aziz Ndiaye teew na fa Baye Ndiaye teew fa vraiment sama teewaay mën na fa ñàkk ndax ñoom su fekkoon dañu amoon empêchement comme ni ma am empêchement dañ naan ma père wala grand demal nu ci bis ba. ma lay wax rek ni Balla gay dara mënatuma métti ci moom ànd naa moom ba normalement xëy na dootuñu ànd beneen six ans ci làmb mu tekki ngembam kon bi nu àndee ba léegi ma ngi rafet kon damay kon continuer di ñaan yàlla mu gën a rafet ndax Balla sama doom la ku ma xam ni man gëj naa ci làmb ci keroog yaa ngi ma gis ci combat wu. ak Moussa Ndoye man day heure boo ma gisee ci famille Double Less ma di ci taxaw Balla laa bëgg ba bëgg njabootu Double kon keroog xam naa ne Balla ma ngi ci tubaab yi Aziz Ndiaye dafa voyagé Sa dafa daanu woon kon man bu fekkee dama bokk ci magum géejawa yi Sa Thiès di bëree ma toog suma kër ba safaan am xaw ma fu ma koy waxee moo tax ma dem taxaw li ma war a taxaw def li ma war a def yàlla may nu ndam ma dellu ñibbisi mais ma di la wax rek ni man waxlu ñaaw waratuma lu may metti nit waru koo xam ndax Balla suma dooma kon bis bii li ma tax di wax bëgguma ñu bëree ba pare si di ñëw di ma laaj may wax lu ma xamul damay wax à l'avance combat bii nga xam ni mooy xew la 31 maa ëpp doole maa daq bëre maa man te ci kàttanu yàlla maay daal da nga laaj ma leneen. dama daan dégg ñu ne ku ne la maa maa dàq ba da nga ko bàyyil ba dimanche loolu laa daan dégg mag ñi di ko wax. Mm-hmm. dañ ni nga joge ca làmba ji di bàkku nga jëm ca làmba ji di bàkku joge ca di bàkku moo gën ma lay wax rek ni entre Balla Gaye ak Bombardier et combat bi fierté bi ma ci am awma ko ci contre Boy Niang duma ko am ci contre Eumeu Sène duma ko am ci. yeneen combat yi nga xam ne moom la Balla Gaye war a bëre Balla Gaye ci ji bii lay wanee boppam ba li Yékini nangu ni moo fi man Tyson nangu ni moo fi man te Bombardier nanguwu ko le premier le deux maa ngi ñaan bépp chute bu nekk fii ci réew yi boo xëyee na nga jël oto dem Mbuur laaj Bombardier làmb ji kan moo ci man su boobaa mu ni Balla Gaye man ci làmb ji ba nga laaj ma leneen. ci loolu damay ñëw ci komba euh, Sa Thiès ak ki nga xamante ni dama laa gis nga takk sa ndigg wàcc taxawu xale yi wane ni géejawaay dafa am loo xamante ni dama ko fay représenté ma gis la nga daj ci ay coono léegi yamatuloo sax ci Balla Gaye mais yaa ngi ci ba ci ñoom Sa Thiès ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. waaw laaj nga ma lu ma lu ma neex loo xam ni à vrai nekk na ci suma xol ma bëggoon ku ma ko laaj faf nga laaj ma ko. maa ngi wax waa Yaraax. àll fi ñuul moo di ñàkk. yaraax nañu jàppale Moussa bu baax a baax combat keroog bi nag am naa ci satisfaction ci kaw suma doom ji daan na li ma tax di sonneet mooy Baye Ndiaye li ma tax di sonn mooy Aziz li ma tax di sonn mooy Balla Gaye li ma tax di sonn mooy Géejawaay lima tax di sonn mooy ñi supporter sama doom yi ndax Sa Thiès suma doom la Balla Gaye suma doom la mbooloo mbër yi nekk ci biir Géejawaay di takk ngeem sumay doom lañu ma wax rek nii Moussa Ndoye naka waa Yarax gën a jàppale ndax jóge ci ñaari defet dafa metti buñ ko taxawul rek làmbam mën na yàqu. Mm-hmm. ñuy ñaan yàlla promoteur yi ñu jàppalewaat ko jox ko combat ndax bi mu summi ko saa cee summi ku ne xam na ne entraîné na. Mm-hmm. li mu waroon def def na ko waa waa kër Dubalees ñoo naq di bëreel. waa kër Dubalees ñu daan la terewul a doon mbër ku ne xam na ni keroog Moussa Ndoye fi mu egg saa cees bu fa eggoon beneen mbër mu tëdd waaye Dubalees ay doomam yàlla moo leen may ci bëre. sama wareef rek laa def te def naa ko ngir Aziz def ko ngir Baye def ko ngir Géejawaay def ko ngir bi ma nekk seeni waajur may ñaan yàlla rek Sa Thiès mu gën a lu xam ni mbër yu ndaw yëpp seen xel dafa nekk ci Balla Gaye te digganteem ak Balla Gaye ak mbër yi moo ko dox mu war a entraîner guddi ak bëccëg te déglu ndigal boo ko defee bu amatee combat yàlla may ko ndam ba nga laaj ma neen su ma ñëwee ci Gaston gis combat mi nu mu koy tëggee ak barki démb euh, démb boog du moins. combat yi nga xamante ne jotoon naa jotoon naa taxaw te mujjuñ koo tëgg ñu jëm ci bés bu toll nii combat ak Balla ak Bombardier ñu ci bëri ne comme que démb làmb amul est-ce que semaine bii di jot làmb dina am. xam nga di laajte xam nga Gaston Mbengue bëgg réew mee tax mu dellusi ci réew mi di tëgg làmb Gaston tedd na fu nit di am teraanga fii ci réew mi am na ko. bi muy nekk ci làmb à part sëñ du ñaa kenn nekku fi promoteur yii fi ñëw tey bay wax di fippu pour doon promoteur ci Gaston la ñu xool ba bëgg a tëgg làmb làmbu démb ji Gaston la gën a metti làmbu démb ji Brassène la gën a metti mais xëy na loolu la yàlla dogal lenn rek laay ñaan Gaston mu taxaw wax ak ministre de sports wax ak Brassène ñu jàppale Pape Sarr mi waroon tëgg démb ñu def ay pexe bu mu tëgg ñu taxawu ko ndax xam na ne centaine de millions la ci def mbër yi waaj nañu supporters yi waaj nañu yàlla indi ay dogalam bii mooy première journée mu leer la ko kooku jóge woon ci tubaab yi indi ay moyens mënoon ko yemale feneen indi ko fii ci làmb ji mu nekk bis boo xam ne mbër yi dàq ci bëri ci réew mi la ñu dajale bis boobu échec démb nañu ko defaraat ku gis ni Gaston waxee démb xam ni Gaston ma li ma neex ci moom maa ngi moom dañoo jukko ndax tabaski fa mbuuj mooy suñu maam lépp loo xam ne nekk na ci xolam fii wax ko du am jàmm may wax rek ni bisu démb bi dimanche jàll na muy démb dañ ko waroon a bëri mais ku ne xam na ne Gaston sol na daalam dinañu def ay pexe ba combat bi taxaw loolu amul ñu dem président Macky Sall ñaan ko mboolem lu ci promoteur bi fare woon ñu delloo ko ko réew mi jëm ci kanam mais na promoteur yëpp ñaanal Gaston xamul sax ni ñuy iñaane dama ni bis boobu daal ñun dinañu ñaan Gaston boo ma seetaanee ci site bi gas sa taxawaay démb rafet na ñu ngi ñaan yàlla guddal sa ñaan yàlla yàlla dooleel la ci wàllu làmb te boo jógee ci làmb làmb dellu ginnaaw ba nga laaj ma leneen. boo jógee ci làmb làmb dellu gannaaw ba nga laaj ma leen euh, naka nga nga jàngatee làmb Siteu Papa Sow Boy Niang Tapha Tine bu ci jógee ñu tëj. waaw xam nga Siteu Papa dafa yàgg Pape Abdou Fall maa ngi koy ñaanal promoteur bu baax la man promoteur yi ci làmb ji am na ci ñoo xam ne xam nañ seen bopp duñu sama waay du ma fi nekk di lim di situé ñi nekk sama nit di ma xool ci bët man làmb ju ma ñëw damay dagg billet man waxuma ak benn promoteur pour nga may ma ticket barka démb contre Sathiès dama dagg ticket contre Abdou Diouf dama dagg ticket combat bu ma dugg ci stade bi may dagg ticket ndax toll naa ci réew mi foo xam ne du ma ñëw ba jubloos bi sagaru nit naan ma an sa ticket man loolu xaalis jaralu ma ko mais may wax rek ni promoteur yi na ngeen jiital Gaston Mbengue teg ci Pape Abdou Fall dégg Abdoulaye Ndiaye ngeen boole seen doole xam ni réew ñoo ko bokk ñu organiser wu làmb jëm ci kanam mais làmb tànk yi mu jëm mu am ay plan ñii di ñoddi fii ñii di wax fii kenn ku nekk di wax lu ñaaw au lieu ñuy wax lu rafet nañu daje lépp bëgg ko marché mbir mi jëm ci kanam mais daal en réalité Gaston Mbengue daal man le meilleur laa koy tudde ba nga laaj ma leneen. Karamba suma sëriñ la ndax ku ne xam na ni bala ma ci mën a wax suma turandoo bi ñuy wax jaww Gaston Mbengue daf ma jox combat jàppale ma jàppale goo xam noonu la ñuy jàppale nit ndax dem na ba ñu war a signé contrant wu mbër yi mu ni bu jaw de bëree dimanche nañu téye signature bi ba lundi ndax Gaston làmb boole wuñu noo bokk maam Karamba nag dafa ñëw uniquement pour jàppale jaw de bi ku ne am na xaalis awuma xaalis bu ma ko mën a jox mu jóge ba Guinée Bissau pour jàppale ma ci combat bi kon nag maa ngi gërëm Karamba di gërëm pappam Alioune soire di xam ni combat bi coono yi mu ci daj bu doon jox-jox rek aw ma lu ma ko jox mais mu ngi may jàppale ngir yàlla maa ngi ñaan mboolam lim ma ñaanal ci combat bi yàlla suturaal ma ba jaw de daan buloo bu lugu jël bu set wecc ndax buloo mag nga dama lay ñaan rek en tant que dit ak baayam di fekk sama tur yi ci làmb yow buloo bëggoo mu fay nga bàyyi rek jaw de jàppale caxat caxatee la yaag bombardier yëpp ñu yóbbu leen retraite loolu laay ñaan di sant yàlla bu baax. di julli ci yonent bi te di la gërëm yéen waa Wassare Lamb loolu mooy sama kàddu gu mujj maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jërëjëf. di la sant yow tamit di la gërëm di la ñaanal bu baax a baax la ñaanal nga yàgg fi ànd bu baax a baax ndax euh, sa yàgg rek day day def lu bëri ci ñun di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy seetaan ci Wassare Lamb jëleen dox dig daje ba beneen yoon jëf am na rek euh, lu ma fàtte wax te moo ma gënoon yitteel muy maa ngi woo waa waalo yéen waa waalo maa ngi leen di woo ci combat Balla Gaye bii fu waalo waalo mën a nekk lépp loo xam ne daan ngeen ko defal waalo di ko defal Balla Gaye yéen waa cekkeen bàyyiwuma leen yéen waa cekkeen ca kër mu tufa sekk bàyyiwuma leen bàyyiwuma waa kër ma Marsar bàyyiwuma waa ndimb bàyyiwuma waa góolam bàyyiwuma waa ñi bàyyiwuma Ros senegal bokki neddu saaro laama mbaan jagle xumma ba ngay dem risaa tool ba Rosso Béthio pepp fu waalo waalo ne xam leen ni Balla gay doomu waalo lañ ko tudde ñu jàppale ko ñaanal ko mu gañe Bombardier ndax mu gañe ko mooy logique lamb ndax Bombardier mënul dem ba war a retraité fas yeene teraanga bii nga xam ne moom lay xëcc ci làmb mu koy xëccoog man loolu nag yéen waa waalo bu leen ko seetaan maa ngi gërëm nag waa Mbour gi Bombardier ji dëkk di gërëm waa Géejawaay di wax ni kàddu yi lu ci ñaaw nañ ma ko jégal di ñaan ci réew mi jàmm di ñaanal borom réew mi jàmm di ñaan feebar bi yàlla na ko yàlla jëlee fii ci jàmm te di wax ni feebar bi feebar la boo xam ne ñëw na ci àdduna bi ñu ngi ñaan yàlla jëlee ko fi mais ñu ngi ñaan président Macky Sall bul tëj réew mi ñu ñaan président président Macky Sall bul tëj sport bi. nañu takk masque raxas suñuy loxo te góorgóorlu ànd ak feebar bi liggéey ndax bu ñu tëjee réew mi rek réew mi dafay nekk en crise kon sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ñaanal naa ñëpp wax waxaat du bare wax dama fàtte rek jërëjëfati jërëjëfati jërëjëfati